برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان Thank you. الحمد لله المنعم المتفضل بالإيجاد صلواته وتسليماته على روح الإمداد سيدنا محمد أفضل كل حاضر وفات وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم التناد ورضي الله عن شيخنا ومولانا أبي العباس القطب المكتوم والبرزخ المعلوم أبي أبي العباس شيخ ومولانا أحمد بن محمد التجاني وعن خليفته ووارث سره وجهره مولانا أبي إسحاق صاحب الفيضة التجانية الكبرى شيخ إبراهيم الحاج عبد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته maa ngi nuyu mbokk yi غور teew yépp góor kenn ku nekk maa ngi lay nuyu ci sa tur ak sa jëmm di jagleel nuyoo muqaddam bu baax muy Cheikh Abdou Ndaw fii ci Dakar ndax moom moo waral suñ dajee fii tey ngir yàlla dajee bi wax ji lum bëri bari rek yàlla rek la ndax su dugut yàlla rek yàlla rek ñun dañ fi jóge perte waaye yàlla moo ñu fi dajale te lum doon ci azal la ndax Cheikh Tidiane dafa wax ne daje yi ngay gis yëpp lu yàlla doon ci azal la ko ko fekkee woon booba buñ koy def ci suuf da ko fekkee ku ko fekkee wutoon lum la jege-jege doo ci bokk moo tax mu ne innamal waqtu waqtu ibdain la waqtu ibtidain mu ne waxtu yi waxtu feeñal li yàlla bindoon la waaye dootul waxtu feeñal dara li feeñ lépp yàlla bindoon na ko te daje woon nañ demb moo tax ñu mën a dajee fii tey liñ fi dajee nag comme yàlla la dañuy sant yàlla bu baax di sant itam yàlla beneen yoon ci sant giñ ko sant gannaaw bu ñu xamee ne yàlla moo ñu fi dajale di nuyu mbooleem kilifa yi fi teew yëpp ñëpp gis nañ leen kilifa yi jiite nasrul ilmi ñu ngi fi teew yeneen kilifa ci yeneen anam ñu ngi fi teew ku ci nekk rek am na cër boo xam ne moo la xëcc ba indi la ci mbooloo mi tey ñoom ñëpp ñu leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak jëmmam di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di jiital benn xadis bala maa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne juróom-ñaar yàlla dana leen keral bis ba nga xamee ne benn ker amul lu may keram moom yàlla sabaatun yuzillihumullah yawma la zilla illa zillu yonent bi ne al imam al adil mu ne ilimaan ju maandu teg ci wa shaabun nasha fi taatillah teg ci rajulun zakarallah xaaliyan fa faadat aynaahu biddumoob wa rajulun daathu imraatun zaatu mansibin wa jamaalin fa qaala inni axaafu allah wa rajulaani taxaabaa fi zaati illahi tabaraka wa taala wa rajulun anfaqa biyaminihi fa axfaaha xatta lam taclam shimaaluhu ma tasaddaqat bihi yaminuhu wa rajulun qalbuhu mutaalliqun bil masjidi daiman juróom-ñaar ñooñu la yonent bi wax ne bis boo xamee ne benn ker amul lu may ker yàlla yàlla dana leen keral mu ne limaan ju maandu mu ne ak waxambaane woo xam ne ci topp yàlla la sosu maanaam koo xam ne jaaroo ci fo mu ne ak nit koo xam ne wéet na di tudd yàlla ba ay rongañam di sotteeku ak ñaar ñoo xam ne dañoo bëggante ci yàlla ak koo xam ne jigéen ju am daraja ak taar sàkku na ko oo ko ci boppam mu ne ko ragal naa yàlla ak ku saraxe ci ndey jorom ko ba càmmooyam xamut li ndey jorom saraxe ak koo xam ne waxtu wu génnee ci jumaa ji xolam a nga aju ci jumaa ji ba mu ciy delloo bàyyi firi na xadis jooju firi bu gàtt ne na juróom-ñaari yonent bi tudd yëpp ci xadis yi mu ne dañoo jafe mu ne benn moo ci gën a yomb te moo ci ëpp njëriñ mooy bëggante ci yàlla bëggante ci yàlla boobu nag ñun moo ñu indi fii tey moo tax itam ñu tase géen fii ndax su fekkoon ne leneen la rek nit ñi am nañ feneen fu ñu ko doxee ji waaye fii tey képp ku fi teew rek yàlla moo la fi indi yàlla nag ci jaam ñi rek nga mën a jaar pour am ko ñun mën nañoo jaar ci Cheikh Ibrahim pour am yàlla mën nañoo jaar ci Cheikh Ibrahim pour am Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mën nañoo jaar ci Cheikh Ibrahim pour am yonantu bi sallallahu alayhi wa ndax moom mooy mazharul kamal yi te pays bu nekk rek boo fa demee lu dul pays bi moom boromam am na ci leneen lu mu aju ndax bàyyi mbootam daf koo laaj nekkoon ko ndax Cheikh Tidiane gis na rabbul izzati mu ne ko Cheikh aajoom nekkul ci rabbul izzati digganteem ak rabbul izzati yonentu fi soxlaam yépp ci yonentu bi la nekk li muy am itam ci yonent bi la koy amee kon taalibe bàyyi itam li ñu war a xam mooy ne seen soxla ci Cheikh Tidiane ak ci yonent bi sallallahu alayhi ci bàyyi rek lañ mën a jaar pour am ko lu wasila yu bëri bëri nag ndax tey li ñu dajale fii waxtaane kenn ku màgg la di imam bu màgg di mbokk mu màgg di xarit bu màgg di itam kilifa gu màgg ci tariqa bi di jàngkat bu mag lépp loo xam ne tuddal nañ ko ko rek ku mag la ca waxoon naa fi benn bis keroog bi ñoom professeur Diop di ubbi af inauguré affaire yi clinique bi ma ne leen dafa am fukki jikko yoo xam ne yonent bi rek moo ci moom la daje yonent bi moo doon yonent bi nga xam ne ci moom la wax yi bi di wàcc moo doon général bi nga xam ne xeex bu jóg moo ko jiite mu amee woon trésor di joxe alal bi faj nit ñi moo doon jàngale te borom kër la woon buy denc ñëpp mu nekkoon buur arab yi ma su ñu am buur moo doon atte lii xew ci diggante nit ñi xeex yi xeex moo ko daan atte ci jamonoom muy fukki jikko yoo xam ne yonent bi daf ko wéetoon bàyyi waxtu waxee ne fukk yooyu yëpp benn bu ci jullit am rek mën nañ ko def njiit tey kon nag jullit ñi ñu ngi sutantee ci jikko yooyu nekkoon ci yonent bi ñaata nga caam am yow su fekkee mu ngi doon jàngale xam-xam yaa ngi jàngale xam-xam ñu ne am nga benn su fekkee ne ilimaan la woon ñu ne am nga ñaar su fekkee ne daf daan jël alalam di ko joxe ngir yàlla ñu ne am nga ñett su fekkee xurookat yi waxtu wu ñëwee ci moom mu atte leen ñu ne am nga ñeent su fekkee bu nit ñi feebaree mu ñëwee nga faj leen ñu ne am nga juróom mën nañoo wax ne imaam juróom yi yëpp mu ngi ci woon te di ko sellal te itam éene bi yàlla rek la woon soxlawu ci ku ko fay soxlawu ci ku ko moo tax dama ne keroog ba may waxtaan ci méridien dama ne man damay commencé ci fi ñu tàmbalee maag moom man 73 bàyyi abal ma dem Caire fekk ko moom mu am licence ci at moomu war a dem Angleterre bi ma ñëwee moo sëñ Aaxi bu ñoo bokk kër moo ñu teeru aéroport ñëw duwal ma néegam amee lal bu tuuti boo xam ne mu ngi toll ni lii ñu toog nii nga xam ne benn nit sax bu ci tëddee du ci yaatu mu ne ma nañ bokk lal bi ñoo doon bokk lal ba mu ñibbi ci lal bu xat boo xam ne benn nit sa xaju ci waaye boo waxee mu ne la bën bëni pusam lum xat-xat bu ko ay soppee bokkee xaj nañ ci àllab tunga lum yaatu yaatu su fekkee ay noon nga fa nekk xaj nga xat nga fa ñu nekk ci loolu ba yàlla def ñu bàyyi pare njàng yi ñibbisi fekk ko moom itam mu ñibbisi ñu nekk ci wetam di jàppalanteeg moom gannaaw bu ñu fekkee bàyyi dem na Sidi Ali dem na ñu samp ko mu nekk ilimaan ñu nekk ci wetam di ko jàppale ci li nga xam ne mënu ko te ñun mën nañ ko ndax nit ku nekk am na loo man waaw boo doon dimbale nit mu ne man aw lu ma la aw ma dara lu defal daf lay nax am na lu man waaw lim mën na la ko defal waaw mbooleem ñi ko doon jàppale ku ci nekk rek am na ci loo ko doon jàppale ba nga xam ne moom waxtoom dana ko man a def ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyam dëgg-dëgg loolu yëpp yàlla rafetal ko man de nekk nañ mu nekk ilimaan ñaar fukki at ak juróom-benn te loolu mooy li ñu nekk Medina bokkut ak li ñu nekk ci biti waxtu wu nekk ñooy ànd di tukki guddi ak bëccëg amut lu ñu waxut maag moom waaye suñu wax itam amut ci lenn luy gaañ benn mbindeef waaw lépp ci yàlla la aju wala ci yonentam wala ci Cheikh Tidiane wala ci Baye wala luy defar mbir yi nga xam ne ñooñu ñu ko fi bàyyi amut nag ci lu ñu waxut waaye ñaar fukki at ak juróom-benn yooyu dama ne. man musuma ko wan sax ne ko tariqa bi ñu bokk am naa ci ndigal lu jóge ci Sidi Ali musuma ko wax ne am naa lijaasa waaw te Sidi Ali bindal na ma lijaasa njëkk muy gaañu ne lépp lu ma bàyyi ndigal may ndigal may naa la ci ndigal waaw ba mujj gi dem naa ba bu ma ko indilee mbóot ne ko may ma mbóot may ma ci ndigal ci mbóot mi mu ne ma xanaa xooloo li ma la bindal li ma la bindal làmboo na lépp bàyyu dara waaye loolu yëpp musuma ko wax imam ngir ormaal ko ak topp ko topp ma ko a topp ba moom mu jàpp ne aw ma lijaasa mu bind benn lijaasa ne mbokk mi nga xam ne gërëm naa ko te baayam gërëm na ko moom laay jox lijaasa bi jox ma ma jël waaye ba léegi waxuma ko ne jox nañ ma lijaasa wala am naa lii wala am naa la lii waaw loolu yëpp ngir jox ko cër bi nga xam ne moom la ko yàlla jox ndax cër boo ko yàlla joxee nit boo ko nangoo moo ko moom boo ko nanguut moo ko moom kon nga nangu ko mooy tax nga am jàmm te boo tëddee tam sa xol dana noppalu ndax sa xol dana xam ne yow li nga waroon def def nga fi mu nekk nii moom dem na waaye ñun rëccuñ dara ndax xam nañ ne ni ñu waroon a ànd moom àndee nañ ko moom te mosuñ ko or suñ ko uruj waaw suñ mosuñ koo or mosuñ koo uruj ku masa meroot sax man danaa def nit ki loo xam ne moom mënu ko def nit ki waaw ba nit ki dana xam ne kii li ma meroo maga moo tax mu def ma lii waaw li ñu war a def ak moom lépp def nañ ko moo tax suñ koy fàttaliku tey ñu ngi koy fàttaliku ci kaw sant yàlla ndax su fekkoon ne am na benn dëgg gàkk-gàkk buñ ko mën a waxal rek buñ ñu ooyee ci fàttalikoom ñun duñ mën a dem su fekkoon ne am na lenn loo xam ne itam xam ne nit xamal na ko ko ci lu bon mën koo wax buñ ñu ooyee duñ dem ndax danañ rus bu boobaa ñu toog ñu koy tudd di tudd leneen waaye xam nañ ne ñaar fukki at ak juróom-benn yi nga xam ne moom la jiite du lu tuuti ndax yonent bi imaam la de waaye fukki at la jiite ci Madina ndax juróom fukki at ak ñett la am yónni ko mu juróom fukki ñeent fukki at la am yónni ko mu am fukki at ak ñett ma Makka lu mu wax ñu dindi ba mu gis ne li mu bugg a def du ma foofu mu gàddaayee fa dem Madina ba mu gàddaayee dem Madina fukk yi ma tudd sànq ci fukki at ci la ko taxawal yépp waaye nag fukki at la jiite ci Madina daal di jeexal liggéeyam uji boromam ma ne fukki at yooyu fukki at yu barke la bu yàlla mayee nit mu jiite ñaar fukki at ak juróom-benn yoo xam ne itam yu barke la kon kooku dañuy sant yàlla ci moom te dund yonent bi ci la dem uy ji boromam kon lépp lu ñuy wax fi mu nekk mooy seet jikko yi nga xam ne ci la nekkoon ñu jëm ko roy waaw ndax tàgg buñ ko tàggee lu ñu am li ñu am yëpp ci ay baat yu tàggee te royuñ ko ci jikko yi tam doyut waaw fokk ñu roy ko fokk ñu topp ko loolu mooy wane ne bëgg nañ ko bàyyi dafa wax ne waman yuhibbuni waman yarani fi jannatil xuldi bila buhtaani am ñum jaaxal ci nit ñi ku ko buggu gis ko danga ko topp te boo ko toppee jëf nga jëm loolu waaye wax mu bëri bëri ak bi lu mu bëri jëf moo ko ëpp njëriñ fi mu nekk li ma waxoon ci ziyaara baay bi ma njëkk a teewe ma ne Seydina Ousmane bi mu nekkee xalifa dafa wax ne bis bii Babacar ak Omar dañ ko daan fareel lim laaj ci wax man nag tey wax indiwuma fii ndax jullit ñi fim mu jëf lañ gën a soxla ci wax waaw ci jëf lañ toll bàyyi itam lañ ko jëfal est ce que bàyyi ak bàyyi maqaamaam baay bàyyi kenn melut ni moom yooyu yëpp baax na waaye nañ ko jëfal waaw nañ ko jëfal jëf joo xam ne dana wane ne li ñuy wax ci moom dëgg la te buñ ootee yëfam ku ëppale ci moom rek danañ xam ne yaa ko gën a bëgg ndax Abubakar Siddiq yonent bi daf daan oote di laañ alal te alal dafa takk ci xol Seydina Omar nee na bis ma ne tey Aboubacar du ma jiitu mukk waxtu yonent bi laajee Aboubacar ëppale ma waaye tey du ma ëppale mu ne mu xalaat ne dana joxe genn wàlli alalam su ñëwee moom genn wàll gi ci des daf koy bàyyi njabootam mu ñëw bañ taxawee rek Aboubacar taxaw di joxe alalam di joxe lim am ci tooli tàndarma ba mu jeex di joxe lim am ci yére ba mu des abaaye bi mu wékkoo fi mu taxaw di joxe lim am ci urus ak xaalis ba mu jeex tàkk ba benn abaaye bi la dese jibril wàcc sol abaaye yonent bi ne ko lii lan la mu ne ko bëgg a niroog Abubakar malaaka yépp tey abaaye lañ sol ngir bëgg a niroog Abubakar Omar xam ne kon kii ko moom a sut ci joxe yonent moom a sut ci lépp moo tax ba léegi itam loolu mooy dem bàyyi xalifa yonent bi la te xalifa eyoona kim uutu li eyoona ko lu ñu war a defal yonent bi rek mën nañ ko koo defal te moom sax wax na ko wax na ne walim laa wa ayni yawma aynu muhammadin nee na jëmmam tey mooy jëm yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam sara sirruhu fi haykali wa gis naa leetar bu ko Baye Serigne Yaxya bind bu yàgg ne ko da ngaa egg ci minbar bi ñu lay noddal nga war a xutba montor baa ngi def ñaari waxtu ci jamono boobu ne ko bi nga jógee ma gis kenn ci malaaka yi su jibril rek mikaayil la waaye ñoom ñaar na xaw ma kan la ci waaye jóg na taxaw ne képp koo xam ne gis Moustapha romboon na ko wéyoon na ko na xool kii kon lépp luñ war a defal yonent bi rek war nañ ko koo defal ñu ngi sant yàlla nag ndax taalibe mi moom Baye ci loolu la leen yar ci def lu baax ak dund la ngir yàlla daanaka sax man ngaa wax ne ñu bari ñuy def lu baax ci ñoom lañ ko royee waaye nag nit mën na laa roy nga ñàkk fayda ba mu jiitu la moo tax buñ ñàkk fayda liñ am nañ ko xam te nañ ko te buñ ko buñ ci doyloo ay wax te moom tegut dara laajut ñu dara waaye nag ku baax doo doo xaar sax bañ lay ñaan wala bañ lay laaj da ngay def li war rek li la war xam nga ko ci diggante sa digganteeg moom def ko mu mat bu ko defee yàlla itam matal li nga xam ne moo nekk sa digganteeg moom sa àddina ewen sa àllaaxira ewen sëñ Abdou nag yéen ñu ngi leen di ndokkeel ndax gis nañ ne coloré googu ngeen jàpp doon ko dundal ci jamono imaam Xasan ba léegi bu ngeen tase woon ak bàyyi itam mënu leen a pass foofu te bu ngeen ko defee foofu bàyyi ngeen ko defal ba tey ndax olof yi dañoo wax ne ku wol mburu tudd dëkk waaye ku bugg a tudd imaam itam ci bàyyi nga jëm rek waaw bàyyi mooy dëkk ba waaw ndax ci moom la gongee ko te li nekk ci moom yëpp te moo ko def kon moom mooy bàyyi bi mooy maam bi mooy sëriñ bi mooy lépp waaye li ma seede daal mooy seen taxawaay ak seen jëf ak seen mbëggeel su ngeen tasee woon ak moom itam leen ko passé ndax mbëggeel boo xam ne amut frontière utaluñ ko itam ay nit par parloo taxul ñu koy def ci dëggu yooyu ngeen taxaw yàlla leen ci yàlla dimbale yàlla leen yàlla yokk yàlla yàlla barkeel seen mbooloo waaye bëggante ci yàlla googu dana jur lu nekk ndax tey malaaka yi danañ dellu ci yàlla yàlla laaj leen lu xew ci jotaay bii danañ ko wax ne diw ak diw ñu ngi fa waaye jotaay bi taxu leen woon a jóg dañ faa ñëwoon ngir aajo waaye yàlla bu boobaa dafay wax ne képp ku fa nekk rek jéggal naa ko humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum ñooñu ñooy nit ñi nga xam ne ku jëkkaale ak ñoom doo texee di mukk kon nañ gën a góorgóorlu yii nga xam ne moom la ñuy roy nañ ci taxaw yu baax yii nga xam ne itam imaam ci la nekkoon Cheikh Ibrahim ci la nekkoon nañ ci gën a taxaw lépp luñ leen mën a defal itam nañ ko def te xaar kenn wax ñu ko ci lu baax te njëriñ li ci ñu lay dellusi dama ne bëggante ci yàlla rëy na lool mooy xadis ji ma ubbee te bàyyi ne benn ci gën a yomb te moo ci ëpp njëriñ ñi fi teew ma ne ku fi ñëw tey sax te jotaay bi indi la yàlla na la waaye nag kenn ku nekk ci sa kem daraja waaw ndax bàyyi ay waxam wax yu mag la boo demee ci téere wali yuyi téere sëriñ si doo ko gis waaw nee na bind na leetar Sidi Ali ne ko man de dama gis yàlla ci géwént di ko laaj suma place ci moom lan la Seydi Ali tontu ko ci suuf ne ko lum la tontu mu ne ko tontu na ma ne manzilatuhu indi hiya manzilati indahu nee na wàccuwaaye moom yàlla ci man mooy suma wàccuwaay ci moom kon nag taalibe bi itam wàccuwaayam ci sëriñ bi sëriñ bi mooy wàccuwaay sëriñ bi ci moom te Cheikhu Tijaani radiyallahu anhu laaj nañ ko ne lan mooy wane nit ki taalibe bu dëggu mu ne mu joxe alalam ngir yàlla ñu ko ñi amul alal nag lan mooy wane ne dëggu nañ mu ne buñ déggee ñu tudd ma ñu xeex ñaar yooyu la wax moom waaye bàyyi moom tegu taalibe yi dara waxul leen ñu xeex waxul leen ñu bësul ay alal jox ko ko ndax dafa wax ne talaamisata cheikh tijaani fasbiru ala kaydi aada mada dahri tunsaru wala darrakum jahlul jahuli wa qawluhu walaw badda'u aw fassaqu zuma kaffaru loolu mooy li am tey ah ñu naan fassaq naan kéefër baat yëpp tudd nañ ko baat yi ñu amee yëpp tudd nañ ko waaye ñun li bàyyi wax ne fasbiru foofu la ñuy taxaw te bu ci dara nekk toon sax ñi muñ yàlla ñu ànd ak ñoom te itam tooñ yi yépp yalla dana ko régleel bopam waaw te ñiñ tooñ itam man nañ ko régleel seen bop baay bi mu xamee loolu moo tax mi duwalu ci benn fitna dafa wax ne muñ len ci pexé noni lu jamono gudd gudd rek yalla yalla di dimbalé ñi réer bay wax bu len ko faalé mënuñ len lor seen wax itam mënu len lor buñ ne nit yi bidaa ngeen mënu lor bu ñu ay faasiq ngeen mënu leen a lor bu ñu ay xeefar ngeen mënu leen a lor kon kay jeex na kon moom danañu xeexal xeex bi nañ ko ko bàyyee yàlla sax wax na ne man aadaali waliyan faqad aazantuhu bil harb ne ne képp ku ma xeexal noonul suma waliyu yëgal naa la ne naa xeex ak yow te bàyyi ñun duñ wax ne waliyu la Cerno Asan Dem dafa waxoon ne du ma wax ne wali yu la waaye damay wax ne su fekkee ne wali yu am nañ kuuy mooy seen kuuy waaw moo tax lépp lu nit wax ci xaqam te du noonu ñàkk chance yi kooku la te yàlla dina ko jëflanteeg moom te dafa wax moom ci kaasiful albaas ne nit dafay tooñ naan tooñ naa wali sàngam te dara daluma mu ne li la daal mooy li nga toog di ko tooñ mu ne da xamut waaye li la daal mooy li nga ko ñemee tooñ waaw loolu mooy li la daal waaw yàlla ñu yàlla musal ci loolu waaw yàlla ñu yàlla wattul boppam yàlla ñu yàlla dimbale yàlla ñu yàlla boole ci ñi nga xam ne toppul leen dara ci àddina toppul leen dara ci àllaaxira yàlla ñu yàlla boole itam ci ashaabu cheikh radiallahu anhu xam naa ne su fekkoon ne bu ngeen ma buggee def leen nangam ak nangam ak nangam kon coono dana am waaye nag bàyyi na nit ñi ak seen borom ku nekk la nga bugg ci sa borom da nga xidma xidma bu tolloog loolu kon nag ñu ngi leen di ñaax ngeen ci bëgg ko gën a góorgóorlu itam ci liggéeyal ko ndax àddina lépp ci loolu rek la nekk Mouhamadul Mishri mi nga xam ne géej la ci xam yàlla benn taalibeem nettil na ma ne ne wax na ne benn kilo ci yi bàyyi moo ko gënal gënal ñetti kilo ci xam yàlla waaw ndax mbëggeeli bàyyi gi fi ko yóbbu xam yàlla gi mënu ko fa yóbbu te yàlla loo ko xam-xam rek yaay gi ku gë yaay gi ku gën a ñi ko xam sax dañoo dem ba gëlëm ci moom ba xamatuñ dara waaw ah, moo tax mbëggeel nga xam ne mu ngi fi nañ ci góorgóorlu nañ góorgóorlu itam ci li koy dëggal mooy xidma waaw ah, góorgóorlu ci liggéey ci lépp loo xam ne oote nañ ko ci pays baay boobu ndax nit ki bis yi nga am sa dund moom nga am te bu la romboo itam jeex na mënatoo def dara te bis yaa ngi dem te tàggoowuñ démb kenn mënatu ca dugal jëf wéy na tey itam léegi mu jeex nañ góorgóorlu ci suñu ëllëg yi pour def ci lu baax loo xam ne bu ëllëgee buñ ne kii taalibe Baay la Baay nangu taalibeem la ndax dafa am benn kilifa xaadir ci Nigeria ci Kano dafa génn àddina mbokkam mu mbokkal des Kano ñoo bokkoon nekk ay xaadir foofu gis ko ci géwant mu ne ko na nga dem jéem a dem ci taalibe Cheikh Ibrahima yi ñu jox la wirda nga es ci ñoom te nga bàyyi xaadiriye gi nga nekk ci gént gi ne ko ndax man bi ma ñëwee fii pecc ci àlaxira fii sonn naa fi lool ndax bi ma ne taalibe Sidi Abdul Qadir laa Sidi Abdul Qadir ba mu may gisat mu nekk def naa ko sonn nañ ma sonal fu nekk ne ko mel ni mbooloo daal laa gis bu ñëwee rek ñu ne jàll leen mooy mbooloo mi topp Cheikh Ibrahima Niass ne ko moo tax moo tax ba lay digal yow mi nekk foofu ci àddina nanga nga dem jàpp ci waa këram yi bala ngaa ñëw fii ndax lu ko mooy boo ñëwee fii bala laa Sidi Abdou Qadir wàllu da nga sonn waaw loolu ki ma ko nettali moom ak waa ji ñoo bokk dund ci kanu ki mu nekk nii ñu ngi dund ci kanu waa ji xaritam la moo ko nettali gént gi ci mbokkam kon nag ñun ñi nga xam ne ñu ngi ci jaaruñ ci nekk Qadir jaaruñ ci nekk leneen nañ góorgóorlu yàlla ñu yàlla dimbali suñ góorgóorloo te itam yàlla ko nangu te yàlla yàlla def barke ci ndaje mii ba nga xam ne kenn du fi jógee lu may jóge nga fi ay aajo yu faju ñoom ñi nga xam ne ñoo ko oote itam yal na yàlla may leen kattan at mu nekk bu ñëwee yal na gën at moo ko jiitu te yal na yàlla defar seen mbir yëpp yal na yàlla defar seen zahir yal na yàlla defar seen batin yal na yàlla barkeel seen jëmm yi barkeel seen njaboot yi barkeel ñi leen topp yëkkati leen ba ca kaw mu téye leen boppam lakk leen foo xam ne yàq du fa àgg mukk boole leen ci nga xam ne ndimbal la ñeel nekk ndimbal ñeel tariqa tijaan nekk ndimbal ñeel fayda tijaan yeel kubra yàlla yàlla defal leen loolu ñu ngi dellu si di gërëm mbooloom yëpp kenn ku nekk ci turam ak jëmam ñu ngi nuyoo nañ ci njëlbeen ñu ngi nuyoowaat di tàggoo di ngi nuyu Cheikh Mouhamadou Arab mu ngi nii toog Ibrahima Niass Cheikh Ibrahim Mouhamed Ibrahim Niass mu ngi toog soxna Abibatu Niass mu nga toog doomi baay Moussa Lamata Niass mu ngi toog doomi baay ak Umaamatu ñoom ñëpp ñu ay doomi baay baay mbay ñes mhm. Seyda Mariam ñëw na ñoom ñëpp teew nañ taaral jotaay bi Abdou Ndaw loolu wane na ne nit ku baax na su fekkoon ne jëflante ak nit ñi jëf yu baax lii nii doo ko am sëñ Ousmane Cissé mu ngi fi toog sëñ Aliou Cissé mu ngi fi toog Cheikh Tidiane Cissé Joso mu ngi toog Cheikh Tidiane Mouhamed Zeynab mu ngi ni président Mouhamed Niang mu ngi ni toog suñ mbokk Moustapha Sané muy toog suñ mbokk Cheikh Omar Thiam ak Kéba Mindalat suñ mbokk Xaaji Pate Thiam mi nga xam ne moo amee Nasrul Ilmi ci Kaolack ak Mourtada Serigne Mbaye mu ngi toog Cheikh Kébé ñu ngi fii gisoon naa xabaar nu wante nañ sànq bi ñuy julli timis président Babacar Ndiaye bat mu ngi nii toog jigéen ñi nga xam ne itam ñoo jógee Dakar jógee Medina ñëpp a ngi fi Seyda Fatouma Cissé doomu Imam Hassan mu ngi toog professeur Diop mu ngi toog kenn la ci ñun Cheikh Ibrahima Mar mu ngi toog Anne Marie mi doon wax sànq Anne Marie Fall ak Katiga Sama ak mbooleem ñi nga xam ne mënuñ leen a tudd kuñ tudd rek sa tur dugg na ci biir ñu ngi tudd ñu ngi gërëm ñëpp ci teewaay ñëpp ñu ngi sant yàlla itam ci teewaay bi di ñaan yàlla buñ fi teewaat déwén bépp soxla buñ fi am yàlla na ko yàlla faj ñu yàlla aaral boppam yàlla wattul ñu boppam waaye daal maa ngi xamal mbooloo mi yëpp ne bàyyi moom bëgg ko moo gën a wóor di ko jéem a def safaan wala nga di ko jéem a wax. am na ñu gënoon mbëru ci àddina yéen ñëpp dégg ngeen Mohamed Bello bi ñuy wax Sardawna wala Amadou Bello benn la dégg ngeen nim noonu woon bàyyi ci Nigeria te dégg ngeen itam mujjam yéen ñëpp dégg ngeen ñeneen fii ci senegal ñoo xam ne laaju tudd leen fi mu nekk niñ defoon seen digganteeg moom ak fi ñu mujj ci addina gis ngeen itam ñi àndoon ak moom ànd bu wér di ko defal lu wér ak lu dëggu fu ñu mujj ak fu seen njaboot yi mujj ku nekk rek li nga jëf loolu ngay am fal jazaa'ul ihsaani illa al ihsaan loolu la yàlla wax ñi def lu baax lu baax la ñuy am waaye ñi def safaan itam rawatina suñ ko defee ku mel ni Mawlana Cheikh Ibrahim safaan la ñuy am te itam lu bees dóor lu bees yàlla mi bind mbindee fii alquran da nga ci gis yedullahi maxlulatun ñu ne loxo yàlla dafa toog yàlla mu ne man aw ma loxo sax ba mu sax ba muy dagg waaw Moussa ba mu ne yàlla damaa bëgg nga may ma kenn du ma tudd suma gannaaw wax ma lu ñaaw yàlla na ko Moussa ndax dama lay may loo xam ne man suma bopp aw ma ko man suma bopp ñu may tudd di ma wax lu nekk ah yonent bi sallallahu alayhi wa ci ay biir mbokkam la feeñee ay nijaayam ak baay taxam ak ay doomi bàjjanam ak ay doomi baayam lu nekk ci lu bon wax ko ko emuñu foofu ci lu nekk ci lu bon def nañ ko ko guddi gi muy gàddaayee Màkka di dem ma Madina suñu ko gisoon dañ koy rey loolu moo gën a rëy Cheikh Tidiane radiyallahu anhu noonu lañ ko noonu bu nekk te bokkoon na ci li nga xam ne moom la wali yuy jël comme ne moom mooy xaatimul wilaayatil muhammadiya ne nañ boromam danañ ko noonu noonu koo xam ne mosuñ ko noonu benn wali bu ko jiitu Cheikh Tidiane noonu nañ ko noonu bu nekk ba muy taxawal a tariqa nii ba nit ñi man koo jël di wirdu ci jàmm di wasifati jàmm noonu nañ ko noonu bu nekk kon bàyyi bu wéree na itam moom moom mooy xalifa Cheikh Tidiane danañ ko def loolu ñun bañuñ ko waaye ñu ko bañ itam nañ pare seen bopp rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu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 صدق الله العظيم وبلغ مولانا رسوله المصطفى الصادق الأمين وهو أصدق القائلين المصدقين ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورضي الله عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وحمزة العباس جعفر وعقيل والحسن والحسين وفاطمة وخديجة وعائشة وسائر أمهات المؤمنين ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم نور به قلوبنا وقبورنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا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 ربنا عجل لنا بالفرج ونجنا من ضيعة الحرج وامدد علينا من حماك لم نعي صرادقا من حل فيه منعي اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكرمنا بكفيك نفيك الذي لا يرى واجعلنا في جوارك الذي لا يخفى ولا يضام اللهم نذر بك في نحور الاعداء ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم انك اعلم باعدائنا وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وانثانا